dina foog ñu taxawaat ci diggante bi ak président Macky Sall. Mm-hmm. est-ce que li fi des maître Alioune Badara Cissé dafa des ci sa diggante ak président Macky Sall ci lu ñu mën a jàpp nii daf la sacrifié ci bi nga xam ne nii mu ngi lay libéré ci poste ministère des affaires étrangères parce qu'on ne peut pas faire semblant ne dégguñu wala xibaaruñu ni li ko waral mooy lu benn pays bu mag. xibaar ci président ne ko kat sa ministre des affaires étrangères am na relation trouble ak nit koo xam ne fréquentablul recommandable laaj bi mooy est-ce que relation yooyu yu am la yoo assumé la ñaareel bi mooy est-ce que beneen pays moo ñuy dicté ki nga xam ne nii moom la ñuy tànn pour def ko ministre des affaires étrangères bu auditeur téléspectateur comprendre on peut raconter l'histoire mais boo ci mënee boo ci mënee tontu est-ce que du loolu moo des sa diggante ak président Macky Euh, Ablaye loolu lu yomb comprendre journaliste yi ci sama jàngat ak ñenn ñi nga xam ni ñoo bokkoon ak man langue politique bi ñoo ni Alioune Badara Cissé dañu ko déglu ci ñu jógee États-Unis gouvernement américain muy wax ak benn trafiquant de drogue notoire boo xam ni John Obi la tudd mm-hmm. kooku nag boo ko amee doo ko garder sa gouvernement ñu ne ñu génne ko ñu def ko dans divers journées de la place avec un tapage médiatique boo xam ni moo su fi am mu mu mu jàmma nag franchement j'ai eu mal parce que dama gis ni loolu kàcc yooyu dafa jóge ci boor bi nga xam ni man dama jàppoon ni falaa nar a bokk ba ba may sàngoo suuf ci ñi ma war a àndal ci wàllu àdduna ma seet ki nga xam ni moo ci gënoon sawar ci wàllu presse bi ma yóbbu ko tribunal fait une citation directe il n'a jamais comparu il y a eu quand même un jugement qui le condamnait et qui condamnait son organe à être suspendu pendant quelques mois à me payer un certain montant à titre de dommages et intérêts etc etc je me considère comme un patriote je voulais juste réparer le tort qui m'avait été fait, mais je ne vais pas exécuter la décision. Je ne l'ai jamais, jamais, jamais exécutée. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que wutuma ci koppar la ma ca di woon mooy la ñu wax te nekkul dëgg ma bëggoon ñëw indi ay firnde ne loolu am na ndiwuñu ko ka nga xam ni moo ko doon défendre te moom ci boppam mosul teew ndax relation yi ñu am ñoo prêtendoo serment le même jour en 2004 am na mbir mu fi amoon waaw ma ci sore boo xam ni dafa laaloon kilifa gu ma doon liggéeyal moom mu jël sur la responsabilité d'étouffer cette affaire ne ma damay ñëw ñu régler ko mu ñëw sama bureau ma yéeg ak moom ci bureau kilifa gi ñu régler ko étouffer ko comme dañ ko étouffer duma ci dellu si ma ameel ko bor boo xamante ni ba mu ma ñaanee naam metti woon na parce que sama njaboot aussi dañ ci laal bon et puis damay xeex quoi man surtout buñ ma tooñee ma ne bàyyi na kooku ñëwaat na suma bureau ay yoonu yoonu yoon ka ko bindoon ka moomoon organe ba ndax dañ ko bindulu benn stager tubaab boo xam ba mbir mi coowee dafa dafa bàbbee ko donc waxaatuma ci ak moom et on a passé les ponts maintenant ka nga xam ni nag moom moo yoroon dogal bi te xaw ma fan la ko wékk ma jóge màkk mënuma ko gis ma daje kilifa gu ñuy wax Serigne Cheikh Sidi maxtaan Mbàkke yàlla na suñu boroom yokk ay leeram te tas ñu ci barkeem laataa ma ñëw mu digal ma ni su ma ñëwee guddi naa fanaan si Touba su dee bëccëg naa yandu ci si moom mënuma mbir mi yëpp dégg nañ ko waaye bëgguma la ci dégg ci lenn ndax suñu boroom bu lay xeexal doo xuloo benn mënuma ñaar Cheikh Ndiaye ngi toog son plus proche bu voisin de chambre ki ngay tëj di ko ubbi di ko doxal ay itam mënuma ñaar sàcc bu rëccugul jarul yàq sa ay nelaw ak yeneen yoo xam ni mënuguma ko wax fii léegi yooyu daf ma ko dénk way jur bu dénk doomam moo tax bi may def passation de service ma gërëm ko ne sëriñ bi kat maa ngi koy gërëm ndax dalal na ma te dëfal na ma te delloosi na ma taxul ma gisee njiitu réew mi ñu toog ab diir gisewuñu ba mu am at am benn émission bu ñu doon def ci RFM dalal ci l'ancien premier ministre monsieur Idrissa Seck mu am ay kàddu yu mu yëkkati ba ay rangooñ ba yëkkat taxul ma gisee président bi ah, ma gis ni lii la mu nar a jur naru baax. yow wàcc nga ba jóge fii ba jóge fii gisee wu ak président gisee wu ma ak moom. waxuma itam ne jëlee naa la fi man daal woo naa premier ministre woo na ma bon c' est un détail administratif mais c' est important ma jéem ko gis ne ko mbir mi kat dégg naa ko démb te dama ragal mu am ay conséquences yoo xam ne ni gënul ci réew mi je lui donne mon avis de manière très désintéressée ba tey ngaanguma sama situation te fasuma ko yéene ñu waxtaan ci loolu mu am yu ma dénk yoo xam ni itam wax dëgg yàlla daañu ci dellu siwaat te loolee mu ma wax dégg na ko moom keneen ka taxoon mu di ko wax wax naa ko ko ay yoon yoon yoon yoon vous êtes très intelligent mais il va falloir être patient un jour que ma dellu siwaat tojal leen loolu d'accord demal non vas dama ne accusation boobu graaw na ci wax est-ce que layoo nga ko ak président de la république bi nga xam ne mooy sa compagnon moi la preuve que j'ai que cela li ma am ci firnde bokkul ci li jóge ci président de la république parce que jàkkaarloo na ak moom ma ni ko j'ai envie quand même ma comprendre qu'est-ce qui s'est passé mu ni la lan maa ngi ñëw dama bëgg lu may wax rek mu nekk loo xam ne mën nañ ko waxaat te moom mi ma ko doon waxal suñu borom may ko fan wu gudd lool ak capacité bu fekkee am na lu ci dëng mu ñëw weddi ko parce que moom ma ëpp moyen de communication ma ne ko sëñ bi dama bëgg xam vraiment lan moo dox suñu diggante ba cëppaandaw gi mel ni je ne trahis aucun secret parce que tout hmm. ça je le dirai un jour ou je l'écrirai un jour et ça peut être imminent mu ni ma dañu dem mission Bruxelles nga bàyyi ma fa dem Bamako te xaw ma fan nga jëm ma ne ko ak lan mu ne non c'est ça <laughs> mais j'ai trouvé ça tellement trivial ma ne ko mais cheikh bi bi may jógee Bruxelles hôtel cinq étoiles plus man ak yow ak beneen euh, israélite ñoo nekkoon di liggéey sur le dossier de la maison du Sénégal à New York ba heure bi trois heures non un peu moins trois heures et quelques du matin man comment je dois partir parce que ëllëg à Bamako gannaaw ëllëg à Bamako dafa am réunion bu fa Nations Unies convoqué Union européenne Union africaine CEDEAO UEMOA Japon et Allemagne et le Sénégal joue un rôle essentiel mënuma d'accord ma wàcc c'est notre ambassadeur faatu na léegi moo ma gunge ma jël oto bi dem gaar ba jël train dem Paris jël avion Air France 16h30 dem Bamako on n'avait pas d'ambassadeur à Bamako il y avait personne à Bamako sauf un chargé d'affaires qui était seul comme un moineau man dama dama jaayante ne bu ma demee réew sauf ma ànd ak président war dëkk ci hôtel man ci ambassade bi laay dëkk l'ambassade dañ ko déserté dañ ko bàyyi foofu noonu lu yàgg kenn occupé wu ko waa ñu ma non ne ko du ma dem hôtel on va nettoyer la la la résidence kiiwu jargoñ yi tout ça xet gi ñu nettoyer ko donc je suis resté j'ai dormi là-bas le lendemain ma ñëw ci réunion bi j'ai trouvé un haut responsable du Sénégal qui occupe la place du Sénégal à la Réunion c'était la première alerte je n'avais pas été informé de sa présence Et quand je suis arrivé, lui-même était surpris de me waar là-bas mag la yàgg na jiite réew mi ku ñu ràññee la te xam ko ma décalé tuuti mu ñëw toog ma déplacé drapeau bi teg ko suñu diggante il a été élégant de ne voir jamais essayer de prendre la parole jéem mu fa wax jéem mu fa def dara mu toog ñu réglé suñu réunion première alerte ma ne ko sëñ bi bi ma waxee loolu ma ne ko mais kenn du jóge hôtel boo xam ni dafa bakkane da ngay laal bouton rek li nga soxla yëpp ñëw nga di ko fa bàyyi di dem ko ak quarante 45 degrés à l'ombre di dëkk ci hôtel boo xam ne yaa ngi jargoñ yeneen yéenay bokk fanaan euh, ça n'a pas sens mais liggéeyu Sénégal ak man na ma ko jàppe woon jaral na ma lu ko raw donc tu ne peux pas xamuloo fu ma jëm parce que xam nga ko wax naa la ko te bu ma jegoon jógoon Bamako dama ñëwoon ñëw Sénégal def fi ñaari fan yóbbu pèlerin yi doon dem yaa en avait pratiquement 7000 mu yóbbu leen màkk yow yaa ma wax nan laay def ba am la ñuy joxe pèlerin yi pour may leen añ wala ñu may leen reer foofu c'est une tradition pour le chef de l'État d'offrir un dîner ou un déjeuner ma dikke ni ma en général c'est entre vingt mille ma wax ko ko mun ma suñu demee à la à Jidda ñu laaj le euh, commissaire général aujourd'hui délégué général mu xool la banque islamique mu jox ñu xaalis boobu ñu mën ko jox et c'est comme ça que ça s'est passé je suis arrivé j'ai fait le pèlerinage tout s'est bien passé ñu def réception bi avec la famille Bourkhane tout le monde était là tous les pèlerins tout le monde a pris la parole am ñu commencé woon def ay mouvement de grève avant ma ñëw ma jël xaalis bi jox commissaire bi jox ma ko ma wan ko gars yi delloowaat ko ko ne ko président moo leen ko may reyal tout ce que là tout se moi je ne peux pas avoir été trafiquant de cocaïne quand je n'avais pas aw ma sax ñaari dàll yoo xam ne ñoo niroo te ma moom ko nekkuma trafiquant cocaïne bi ma nekkee élève di xarmat nekkuma trafiquant cocaïne bi ma nekk étudiant nekk bitim réew di taxawaalu lu ne ma dugg ci nekkuma trafiquant de cocaïne bi nga xam ne ñu ngi may dugal ci baro bi may waat di nekk avocat may xaar léegi ba nekk ministre des affaires étrangères yor kaddu Sénégal ci réew mi ak bitim réew di jànkoonteel ay Hillary Clinton ay Fabius et cetera et cetera chef d'état yi nga xam ni ñooy naattango président de la république am fu ñu ma teg boole ma ci seen équipe di ma jëloo ay PV ci seen réunion di ma may ndigal ma wax ci seen i tur bu fekkee président fi nekk foofu ma xam ni vraiment kon man xaw ma li ma doon. maître en réalité l' accusation musul nekk da nga nekk trafiquant drogue. dañuy wax ni da nga am relation. c' la même chose ah non euh, différent parce que am relation ak ku nekk trafiquant drogue c' est peut être ni parce que defoo li mu def. est-ce que léegi laaj bi John Obi. est-ce que xam nga ko. mais je le connais trop bien. sa xarit euh, ok mais non ne me dis pas sa xarit la mais je le connais trop bien. je suis avocat ne l'oublie pas. j'ai des amis que j'ai connus que j'ai défendus et qui sont des meurtriers condamnés par la suite. j'en ai connu des trafiquants de drogue j'en ai connu des voleurs, j'en ai connu des prostituées, j'en ai connu des contrebandiers. Je suis un avocat, je défends les causes qui me sont soumises et contre lesquelles je ne peux pas faire objection de conscience. Que je connaisse John Obi ou quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que ça peut me faire Qu'est-ce que ça peut me faire Est-ce que ci accusation bi tu vous auriez aimé que président de la République défendre la bu xibaar bu mel noonu ñëwee ci moom weg la ci te bañ a jàpp ni xëy na la ko ñeneen ñi wax loolu lay gëm le président de la république n'est pas obligé d'assurer ma défense doon naa quand même bëgg comme ni mu ma xamee ak ànd bi ñu ànd ak taxaw bi ma taxaw ci wetam kenn du ko laal mosuma nekk fenn fu ñu ko laalee te lijjantiwuma loolu te dégguma ci kàddoom dégguma ci kàddoom ci lii dégguma ko ci leneen tax na man ma xam sama bopp mais terewul fu yëngoo rek comme ni ma ko defee boobu nu wax Idrissa Seck wax na loolu mu ko wax ci premier anniversaire u hmm. victoire président de la République ak ni ma ko defee waatee bi mu demee université ñu di ko sànni ay xeer mu nekk bis bu tiis bis bu naqadi ma forcé buntu pale ba gisee ak moom toog moom diir bu yàgg c'est-à-dire je ne le pour plusieurs raisons yoo xam ni duñu ko mën wax fii. da nga yaakaar ni yow il t'a laissé tomber au moment où tu avais besoin de lui certainement. il ne peut pas me laisser tomber parce que je me suffis à moi-même et à mon à mes liens intrinsèques avec Cheikh Ahmed Bamba qui a souffert plus que je n'ai je n'aurais jamais souffert de ma vie et qu'on n'a pas entendu broncher et qui a pardonné à ses ennemis et à ses adversaires kon foofu laa taxaw. léegi lan nga jàpp ne ci ci ak bi. bi nga saytuwaatee mbir yi année yi di dem ngay waxtaan ak xëy na ñu ko jege di observer aussi entourage ni muy développé waat lan nga jàpp ne xëy na moo nekkoon euh, mbir mi dëgg-dëgg motivation bi parce que du yow rek gis nañ ci compagnon yi euh, ci premières heures yi gis nañu ñu ci bari aussi ginnaaw bi sori nañ ko de la même manière lan nga foog ne moom mooy problème bi. moi j'ai pensé que dama jàpp ne ci ñi nga xam ni ñoo ko seqoon. xëy na bokk nañu ci ñi gënoon joxe seen bopp du woon ñun kese nag tudd nañu fi léegi Moustapha si selo jàmbaar piir la ñu ngi ñaan suñu borom mu fëgg boppam tudd nañu fi tudd fi waaye gis naa ko fi bërkaati démb mbay Ndiaye jàmbaar dëgg la Mahmoud Saleh suñu ko fi mais am na ñeneen ñoo xam ni encore une fois suñu ay doom lañu te su lu woon ñoom du ñu bouger parce que ñoom la ñu mën te sawar ko ci suñu wet ñun doon ñu ko mos a mën Ablaye Fall a ngi fi woon sànq Cheikh Mbacke tudd nañ ko sànq mais moom Momar Dia ils sont nombreux xale yu bare ñoom mën nungu mbóoj ay xale yu ndaw mais ma jàpp ne xëy na foog na ne man peut bokk naa ci ñi ko war mën gêner ci yu mu war a mën a def parce que bu dee liggéey bi rek franchement comme disait l'ancien premier ministre Abdou Mbaye quand on s'est retrouvé à à à Addis Abeba ci funérailles yu Mélès ñu dem seeti les Sénégalais les Sénégalais sont bien organisés là-bas parce que il y a dafa bare organisation euh, yu rattaché wu à l'Union africaine aux Nations unies Sénégalais yi fees fa del ñu dajale leen kër Bassirou Sène qui est aujourd'hui notre ambassadeur en Gambie Abdou Mbaye mais vraiment maître on dirait que vous êtes un diplomate de naissance peut-être mais quand on est avocat il n'est rien d'impossible il faut juste avoir le sens de la mesure et de l'écoute peut-être que je gênais hein une anecdote qui ne qui ne qui est insignifiant non Pape xam naa benn bés daañu waxtaan. incha allah wax la lu bare yow sama waay sama waay ngeen. donc mais mais mais maître wax dëgg fa yàlla aussi. Euh, toogaay bi ngay toogee xëy na ci confort nga nekk ñu fàttali ko médiature mandat bi nga def kenn mënu la ci jëlee ci ni ñu ko jàppee wax ji léeg-léeg mu dëgër. mais amoo pexe ci rapport yi nga wax ni sax yaa ngi ko bëgg a jox te amoo yoon pour dem ci président bu demee noonu lu tax doo ko delloo ay bagaasam ah est-ce que mënul yomb. dama jàpp ne joxe rapport yi des na parce que pareeguma sama mandat ñett yi des deux mille vingt deux mille vingt et un ba ci digg bi d'ailleurs deux mille vingt et un on va faire jusqu'au mois de juillet parce que je termine. le 5 août ñetti weer ci des waaw. ah xaaral rek. Mm. rapport boobu pare na déjà. le rapport des deux dernières années combiné en un seul communiqué nañ ko ko ba pare président nag doo ko jox ba pare di ko soññi da nga koy bàyyi ak sagom bis dina am app bi mi ngi ñëw bu fekkee jotu ko ma bàyyil ko fa ay rapport am ki may wutu ñu consigner ko dans le PV de passation de service ñu jox ko ko mais nekkuma foo xam ni amoo li nga bëgg rek da ngay génn claquer la porte ah non dénk na ma ko parce que c'est dans ses pouvoirs de nommer aux fonctions civiles et militaires mais moomul réew mi. mais li mu la jox moom moo ko moom quand même. non moom ko laaj ko mu jox ko mu jëw jël ko ils ont essayé. ils ont essayé au moins trois fois mënu ko c'est pas possible ba mu ko xamee dafa noppalu ci loolu. mais bu ma est-ce loolu mooy sa confort aussi. xam ma wax la maa ngi loi moo ko tënk. waaw vas jàpp ni mënu la fee jëlee yow. loo ko waroon a waxtaan ci biir néeg ci penc mi da nga ko ko wax. comme amatoo jote ci moom. non non on s'est on s'est réunis il y a un an et demi à près mu invité ñu añ. këram y avait tous les pontes de l'Alliance pour la République j'étais peut-être man rek maa fa nekkoon ku bizarre parce que bokkuma woon ci appareil politique APR ci jamono jooju muy jël ay paroles def tour de table bon moi comme c'était politique je pensais que je n'étais pas trop à ma place il est là assis Aminata mi ngi nii man maa ngi nii euh, Mimi Touré ma nga ne non Boun Abdallah Dionne mi ngi nii Mimi Touré ma nga ne le reste c'était tout le monde hein, tout le monde ils font de table expliquer les problèmes du parti il a tiré sa chaise un peu il m'a dit mais Samoa il place il me dit si je dis monsieur président dégg naa coow yi ak problème yi fi am si vous en décidiez tel que je le suggère tey mën naa bàyyi médiature ma ñëw jàpp ci parti bi parce que suñu yëf la mu bañ a sookee ñu tegaar ko ci yoon bi tey mën naa bàyyi médiature léegi ci jataay bi on était plus de trente ils sont encore là par la grâce de Dieu tous vivants et en bonne santé donc je ne tiens pas à la médiature c'est une belle institution je vous ai dit am ñu ma fa jiitu ñoo xam ni ay ponkal la ñuy yore réew mi xeebuma ko soofantalu ma ko cofuma ko mais nag teguma ko sama ndoxu bakkan parce que damay liggéey bu may paree cinq août balaa le 10 nga dégg ma tribunal comme ni ma defoon bi ma jógee affaire étrangère toog tuuti ma xëy suba teel wax woo ko nekko damay dem constituer pour défendre Karim Wade mhm. je suis libre la profession le métier que j'ai choisi a pour soubassement la liberté mhm. liberté boobu ñu am ñu ñu ñu mooñaale ñun moo taxoon ñu mën nekk ci wetam nañu ci nekke woon mhm. la ñu doon bañal président Wade nag ba di jàmbaarloo ak moom ci yar ak teggin moom la ñu war a mën a def ak moom bu fekkee dafa indi beneen doxalin ci biir loolu wax ak moom mais c'est tout à normal nom de Dieu un président de la République n'en est pas moins un être humain et quand boo amee ci moom cofeel am ci moom yéene ngeen ànd doxandoo mbir mais doo ko ñooru léegi maître bi ngay ànd ak moom di doxandoog moom mbir